billahi min alsheytaan bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin wa sala wa sallama wa baaraka ala sayidina wa maulana muhammadin al wa ala wa saxbihi wa xeyri xadimihi wa ummatihi ajmain ñoo ngi leen di nuyu di dellusiwaat ak yéen ci jataa yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal fii ci barab bii nga xam ne waa daayira muxaddamatul xidma ñoo koy saytu ci seen télé yii di seen CMT TV muy àddoo fii ci barabu daayira muxaddamatul xidma jataay yi nga xam ne ñu ngi ko jagleeloon yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ci waxtaane ay jaar-jaaram defoon nañ ci ay jataay yu jiitu jataay bii nii tàmbale woon ko ca askanamu tedd wa waaye waxtaan ci ñaari waajuram yu tedd yooyu yàlla na yàlla dolli leen yërmande ak ngërëm waaye it waxtaan nañ it ci gan ak jamonoom moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu waxoon ne yonent bi kat nettalikati siira yi danañu faral di wax naan ay kiimtaanam dañ koy xaaj ci ay xaaj yu wuute am na kiimtaan yoo xam ne lu jiitu mbindeef yi di wàcc ci kaw suuf la tàmbalee feeñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu mel ne bisub alastu bi rabbikum nga xam ne ak ruwaam moo njëkk wuyu borom bi ne ah yi yow yaay borom bi ruuy yonent yi ak suhadaa yi ak saalixoon yi topp ci loola kiimtaan la nettalikat yi bu ñuy wax kimtaan yonent bi sallallahu alayhi wa xaaj boobu foofu lañ koy boole waaye nekk gi mu nekk yonante lu jiitu aadama di am mas nañ ko laaj ne ko kañ nga nekk bu yonante mu ne jamono jooju aadama mu ngi ci diggante ruu ak jëmm ji ñu di ko boole nee na booba la nekk yonante waaye ak kimtaan yi nga xam ne nag mooy xaaju ñaareel bi mooy yi nga xam ne moo ànd ak jëmmam ju tedd ji bi muy gën jamono te bisub altine ba comme nañ ko nettale woon kimtaan yooyu ya ca gën a fés ya ëpp ci yi ñu nettali suñ jataay bii ñu génn waxtaane woon nañ ko ak kimtaan yoo xam ne lu jiitu muy nekkub yónnante la daanaka loolu mooy étape biñ toll yii yépp nag kenn du ko wooye mojisa waaye ay irhasaat lañ koy woowe maanaam daal ay kiimtaan la waaye taxul mu nekk mojisa kon ñi ngi tolloon ci bi nga xamee ne sayyidatuna amina mucc na ba la feeñ feeñ ci xeeti kiimtaan te ñu waxtaane woon ko bi mu ganee jamono waxoon nañu ne lu jiitu muy gane jamono ci la waajuram as-sayyid abdullahi wàccu liggéey bi mu tollee ci ñaari weer bi mu tollee diggante ci la Abdullahi wàccub liggéey bi mu ganee jamono nag kimtaan yi fa feeñoon yépp nettali nañ ko léegi nag dañuy continuer ci li nga xam ne moo am ginnaaw bi mu ganee jamono ak état bi nga xam ne jaar na waxoon nañu ne maamam jooju di Abdul Muttalib waxtaanoon nañ ci lu yaatu moom it wax ci ay jaar-jaaram wax ci cofeel gum ci am ak ak tur nga xam ne tànnal na ko ko ak keroog ba mu gënee jamono dugg gam dugg ak moom ci kaaba gi wër ko ba joxe turu muhammad mu ñëw ci làmmiñ yi noonu rek ci nekkul lu waajal yooyu yëpp day mel ni suñ bind bii ñu weesu waxtaane woon nañ ko kon ki nga xam ne moo ko njëkka nàmpal ci ñu gën a xam li ñuy wax mooy waajuram bu tedd woowu di soxna Aminatu moom it wax nañ ci moom aw askanam wax ci ngëneelam lu baree bari kon soxna Amina moo ko njëkk a nàmpal bi mu ganee jamono it euh, jaariya boobu ñuy wooyee Suwayba al aslamiya di jaariya Abu Lahab Abu Lahab kenn la ci doomi Abdul Muttalib bi Abu Lahab moom la yàlla tëkku ci alxuraan tabbat yadda abi lahabin dana feeñ lu bari ci histoire yonent bi incha allah ca kanam bi nga xamee ne sooy ba ñëw na ci ci Abu Lahab xamal ko ne ko kat soxna Aminatu mucc na am na gone waxoon naa ne Amina ñëpp dañoo maase woon rek amuk cofeel ci moom ñëpp dañoo maase woon yéene ko mu mucc ak jàmm keroog Abu Lahab dafa bég ba ne ko xibaar bu neex bii nga ma jox kat dig naa la ne la dinaa la goreel ne na ko loolu laa lay neexale te loolu yi def na ko boo demee ci kutubu siira yi mel ne rawdul unuf bi nga xam ne al imaamu suhayli moo ko nettali ma ngi koy nettali lu mel nii nee na abbas mi nga xam ne kenn la ci bàyyi yonent bi moo ko abdu aboo benn bàyyi bi aboo lahab faatoo dafa gént gis aboo lahab mu ne ci ay jafe-jafe yu metti ci gént gi nee na aboo lahab di ko xamal ne ko mu ngi ci coono yu metti waaye coono yi li muy metti métti saa yu bisub altine jotee rek dañuy woyefal métti di te li ko waral mooy béggam béggoon ci gan ak jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu boo demee ci téere boobu ma la tuddal da fi fekk fekk xissa boobu ak téere yu baree baree bari ci téere yi nettali jaar-jaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab loolu mu waxoo ni def na ko mooy wala mu waxoon euh, suway ba ne ko naa la goreel waaye nag nee nañ goreel ga dafay yeex tuuti ndax yonent bi euh, woote na fi ba gàddaay jamonoy gàddaay ga la ko soog a goreel te lu jiitu loolu sax soxna Xadija daana sàkku ci Abu Lahab mu jaay ko suway ba mii mu goreel ko mu bañ waaye teewut arab yi dañoo dañoo xaw na am dingiti liñ doon doon doon ay yéefar ñaare bu waatee dara walla ñu misère ko rek faaw ñu def ko looloo tax loolu mu waxoon ci suway ba def na ko suway ba mii ginnaaw soxna Amina bokk na ci ñi nga xam ne taxaw nañ ko tedd ki maanaam nàmpal nañ ko sallallahu alayhi wa waaye nag diir bu gàtt la suway ba mii ndax dañ ñëwoon képp koo xam ne aw turam dafa wadd rek ci jaar-jaar yonent bi faawu danañ taxaw ci moom wax ci ba nit ñi gën koo xam ne sooy ba mi gëstu nañ ci téere yi waaye téere yi koy taarixal ñu bari buñ ñu ci moom euh, duñ yaatal ci moom ba ci ndax dugg na ci lislaam wala dugg ci sax ñu bari dañuy taxaw ni daal ne amuñu lu leen ci leer téere yu bari buñ ñu foofu loolu la ñuy wax moo tax ñu nit bu ñu agsee foofu duñ ci mën a sori euh, suway ba mi ngi faatu ginnaaw fatxu xaybar atum juróom-ñaareel bi ci gàddaay gi la faatu nee nañ sax yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu nekkee madinatul munawwara bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masaa gis ku jugee fa madina jëm fa màkk rawatina jëm fa boori suway ba nee nañ yonent bi daana waajal ay yére ak takkaayu jigéen ak ay yóbbal yu bari ne bu ngeen demee na ngeen ma ko joxal Suwayba al aslamiya li ko waral mooy da doon rafetal ak moom ngir ne da ko taxaw ni waajur di taxawoo doom doonte sax moom ab jaariya la kon moom ba moomu mu ngi faatu ci atum juróom-ñaareel bi ginnaaw xaswatu Xaybar moom téere yi bariwuñ ci moom luñ ci wax ginnaaw sooy ba soxna su siiw su nga xam ne aw turam siiw na ak nekkam moom yonent bi sallallahu alayhi wa fa moom siiw na ku baax ku tedd ku ñuy wax soxna alimatu saadiya boo demee ci téere boobu ñuy woowee atabaxaatul kubra lim na saad da fekk luy lii ñuy wax ak lii liñ weesu ci liñ wax lu bari fa lañ ko jële euh, dafa am xabila bu ñu doon wooyee bannu saad bannu saad xabila la boo xam ne dañoo siiw ci mbaax siiw ci seenu làmmiñ wu leer siiw it ci ay ngëneel yu baree bari ñoom nag dañ daa def mawsimul xaj bu jotee mooy loolu arab yi daa wooye seen xaj bu jiitu lislaam amoon na bu jeexee wala buñ tollee ci mawsimul xaj soxna yu baree bari dañ daa bàyyi ko ci village boobu ñuy woowee Banu Saad ñëw màkk di dugg ci kër yi di laaj ku bëgg ñu taxawul la sa doom Banu Saad mi ngi nekk ci wetu Taïf euh, Taïf moom it soriwut màkkatal mukarama nee nañ matoon nañ fukki soxna yoo xam ne génnoon nañ wut si màkkatal mukarrama pour dugg ci kër yi laaj ku yor gone gu ndaw gu bëgg ñu taxawu ko waaye kër gi nga xam ne fa la sang bu tedd bii nekk nekk tut tànk mu yonente bi sallallahu alayhi wa mbooleem soxna yooyu noonu dugg nañ fa ñu wax leen tut tànk bii kat ab jirim la ñu gàntal xam ne daal ak jirim moom dañoo bëgg a dugg ci ay mbiram ngir bañ a am moom ay jafe-jafe bu ëllëgee rawatina lu jëm ci wàllu fay ak yu demee noonu ku ñëw rek gàntal soxna Alimatu Saadiya mii bi mu duggee ñu wax ko ne ko jirim la gàntaloon na ca tàmbali ba waaye ba mu wëree wër amul benn pexe jamono ji naqari woon lool seen àll ba seen village ba bekkoor lool mu yoroon xale bu ndaw bu toll ci nàmp goo xam ne weenam yi amutoon menn soow mu cay génn xaram mi loof nañ lool te dogu woon na ci ne tey jii kat bala may ñibbiwaat ca village ba bëgg na ma am tout tànk bu ñu ma jox boo xam ne danañ ma jox yóbbal bu ma mën a dunde man ak sama waa kër te bi mu duggee ci kër te bi proposé nañ ko ko waaye wax nañ ko ne kat kii kat waajuram dafa teel nopp noppalu nee nañ boroom këram bi ñuy wax alxaaris ibnu abdul uzza moo ne ko jël ko rekk xëy na yàlla dana ci def barke nee na mu daal di dogu ci ne nañ ko ko jox soxna alimatu saadiya boo demee ci saxiixu ibnu xabbaan dañ ko fekk xissa bii ma lay wax moom mooy nettali neena na bi ma jëlee liir bi dañ ñu baal ci kàddu gi muy jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba leewu ko nga xam ne booba la ko njëkk a téye ci ay loxoom nee na yëg naa loo xam ne mënuma koo misaal ci dara ci dara ci xeeti mbégte ak jàmm ak péex moo xam ne dugg na ma goo xam ne ba ci sama ween yi nga xam ne damaa yëgoon ne mennum soow nekku ci damaa am lu ma yëgaat ci ci ci sama yaram alimatu saad yi mooy nettali nee na bokk na ci kiimtaan yi nga xam ne moom laa njëkk a gis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam warwaay bi mu yoroon jóge woon village am ñëw màkk muy daaba ji mu yéegoon daaba la joo xam ne nii boo ci yéegee da ngay dafa yeex da nga dóor danga nga soññ da nga def lu ne mu soog a dox waaye nee na bi mu yéegee ci daaba ji ba leewu ku tedd ki daaba ji daa jékki-jékki ne mel nag melax rek daal di dem ca village ba jiitu fa soxna yem àndaloon ba ñoom sax dañoo yéemu ci ne xanaa dangaa soppi daaba joo war mu xamal leen na leen daaba ji mu yoroon naka jekk jooju la yoraat daaba ja ximaar am mbaam la woon euh, loolu mooy kimtaan gi njëkk bokk na ci kimtaan yi nga xam ne feeñ na ci xariyatu bannu saad feeñ ci biir kër alimatu saadiya feeñ ci jëmmi alimatu saadiya kimtaan yooyu bokk na ci mooy gone gu ndaw googu nga xam ne moom la yoroon moom alimatu saadiya te amoon na ñetti doom moom alimatu saadiya ku ñuy wax abdullahi ibnul xaaris anisatu bintul xaaris ak xusaafa bintul xaaris xusaafa moom la ñu wooyee sayma moo nekkoon gone goo xam ne du nelaw guddi day jooy guddi rek guddi gi yonent bi njëkk fanaan ca village booba guddi googu xale ba nelaw na ba jaaxal leen village ba daa jékki-jékki verte te gëjoon naa amum ñax waxuma la sax jëmmi alimatu saadiya waaye xar yam yoroon jur ga mu yoroon ñoom ñëpp jur gépp nga xam ne jotoon nañoo loof dañoo mudd mujj commencé di dundaat dund dund gu baax goo xam ne dafa mel ne daal xeeti toppatoo yi gën a kawe lañuy toppatoo jur googu te loolu lépp jotu faa am bañ yëg ne daal kii ñu indi yor ko dara la ci ànd nag dara ñu fonk ko lool yëmalewuñ kook dara war warmaal ko loolit it xeeti war ma junni def nañ ko ko daawuñu ko gëdd daawuñu ko dóor daawuñu ko merloo fu ñu toll dañ koy bégal te li ko waral mooy yëg gi ñu doon yëg dara ci moom moom moom moom muhammadu rasulullahi mi nga xam ne yonent bi nee nañ am na fa lu ëpp ñeenti at yu teg am na ñuy wax sax ba juróom maanaam fa la fere nekkaat fa ay ati at loolu ci kër Alimatu Saadiya ci village boobu ñuy woowee banno Saad ca wax naa la ne la mook Taif sorewuñ lool am na sax ñu koy natt ci ci ne juróom-ñaar fukki kilomètre la digganteem ak Taif village boobu yonent bi sallallahu alayhi def na fa diir bi nga xamee ne fa la yonent bi nekk nag lu tollook ci ñeenteelu atam ak wala juróomeelu at ci la toogoon mook ndaw yi dëkk bi xale yi ñu mel ne lu nekk ci ginnaaw kër yi moom sax nee na li muy net bokk na ci li muy nettali nee na bokk na ci li ko yéem ci yonent mooy dafa doonoon ndaw loo xam ne daal dafa seddoon lool bu gone yi sax di bëri ak fo moom boo ñëwee ci jotaay bi rek da koy daal xàmmee ci sedd gi ci sedd gi ci nopp gi bi nekkee ci ginnaaw kër gi mel ne luy fo ñu gis ñoom xale yi jëxërën malaayika yi bàyyikoo ci asamaan yoo xam ne dañ ne say seeni laaf ñoom sax ba ñëwee dañ ne jinne lañ wax lañ wax comme ni ñu daa dégg jinne rek ñu jàpp ne loolu ñëw jinne la ñoom ñëpp ñu daw ci melo yooyu soxna Alima wax ci moom muy seet maanaam teey gi ak noppi gi ak dal gi ba ñëpp dawee moom taxul mu daw mu toog ànd ak dalam malaayika yooyu ñëw tëral ko mu jaaxaan ci beneen nettali boo xam ne yonent bi moo koy netti nee na ñu xar dënd bi ubbi ko comme ku yoru keesam rek ubbi ko ubbi dënn bi yor lu mel na ndab yoo xam ne ndab yi wurus la ndoxum sam-sam ne ca biir nee na ñu ubbi biir bi génne xol bi mel na lu raxas raxas raxas dugalaat am yuñ génne tëjaat ko kàpp mel ne ku yoroon sa kees ubbi ko tëjaat ko am na sax xadis boo xam ne sayduna anas ibnu malik moo koy mettali nee na mas na maa gis dënnub yonent bi sallallahu alayhi wa ci dënn bi mu mel ne lu am ay jeex jeexiti ñaw mel ne daal ab liggéey bu am ci dënn bi nee na liggéey booba moo nekkoon xar dënn dëndam boobu nga xam ne moom la moo amoon ca état ba mu nekkee woon ca loxo yi soxna Alimatu Saadiya loolu sëriñ bi tudd ko ci xasida gu ñuy wax fatxul fattaax fi madxil miftaax mu ne taharahul qudduusu min uyubi bi shaqi sadrihi wa tardil uubi tahharhu fi zahirin wa batinin min kulli aybin baarisin wa kaamin mu ne suñ borom da ko setal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bépp ayib nee na keroog bam xottee dënn ba rek ba def ca lam cay def dindi ca lam cay dindi booba la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mucc ci bépp ayib joo xam ne doo doomu aadama na ko baaxoo am ayibi zaahir ak ayibi baatin loolu sëriñ bi mi ngi koy nettali loolu nag bi mu amee wax nañ ne soxna Alimatu yi dafa woo Muhammadu mu ñëw mu laaj ko li xew yonent bi ci dalam ak ci tekkeeralam ak làmmiñ wu leer weeg mën a nettali gi ak jub géeg dëggu gi mu nettali ko la xew lépp na mu amee ki la soxna Alimatu yi ne ah man de wax dëgg yàlla bëgguma ak ndogal di ñëw di dal ci Muhammadu mii ci sama kër gi ndax ci moom ñépp am ci moom yaakaar ñépp ko bëgg te wax dëgg yàlla bëgguma dara lu koy dal loo xam ne dañ naan ca loxoy Alimatu Saadiya la ko dale wala ca kër soxna Alimatu Saadiya la ko dale nee nañ mu daat koy dajaleel ay bagaasam yépp ne ko daal faw ñu dem ci sa waajur soxna Aminatu ma jox la ko ma joxaat la ko nee nañ bi soxna si soxna Alimatu Saadiya agsee ci sayyidatuna Amina radiyallahu anhuma nee na mu ne ko damaa ñëwoon ngir indi Muhammadu waaye maa ngi lay xamal ne la gisuma ci moom dara lu ma naqari amul dara lu ma def loo lu jar sax ma di ko indi dama ko indi noonu rek booba mi ngi nëbb xew-xew bi ndax jàpp na ne bu ko waxee rek dara la daal nee ci la ko soxna Amina ne ko euh, damaa bëggoon nga leeral ma sabab bi tax nga bëgg koo indi nee na daal ci la bi ko forcé xamal ne ko jigéen ak jigéen nañ waxtaan rek wax ma li tax nga bëgg koo indi ci la ko nettali nag xew bii nii waaye soxna Aminatu di jigéen ju mat jigéen di yaay ju mat yaay di ku bari sutura di ku xam kim yoroon nee na ba mu nettalee ba àggal deful benn réaction buy wane ne daal tiit na ci doomam ci lim tontu soxnaa li ma mooy gis naa ci moom lu ëpp lii nii ci xeeti kimtaan man ca dëgg-dëgg xam naa ne sama doom jii dana dooni dara bu ëllëgee foofu la waxtaan wa yam digganteem ak soxna Alimatu Saadi buñ bëggee taxaw tuuti ci soxna sii di soxna Alimatu Saadiya comme niñ ko waxee woon ni ku aw turam wadd rek ci jaar-jaaram yi dees na wax ci moom aslëf soxna Alima mii moom li ëpp ci nettalikat yi nee nañ tuuboon na dugg ci lislaam loolu moom li ëpp ci mu arrixuuna yi ak ñii nettali ci siira dëppoo nañ ci ne soxna Alimatu Saadiya duggoon na ci lislaam am na sax ñu àgg ci ne am na xadis boo xam ne nii soxna Alima moo ko solo moo ko nettali te mu xaddisoon yi duñ jël xadisu koo xam ne nii bi yéefar la loolu bokk na ci sart yi eh, yi ñuy jëlee xadis ci ruwaat yi limaale nañ ko ci saxaabiyaat yi maanaam saxaabiyaat yi ku koy doon ab jullit lay doon nee nañ sax am na yi jamono bekkoor bu méttee métti dalaat waa boobu ma léegi muy xariyatu bannu saad bekkoor bu métti dal nee na mu jotoon a bind ab yóbbante jëmale ko ci soxna Xadija booba yonent bi nekk na ab yonente ba yor soxna Xadija di ci sàkku ndimbal nee nañ bisub keroog sayyidatuna Xadija mii nga xam ne turam dana feeñ ca kanam lu baree bari yónnee woon na soxna sii di soxna alimatu saadiya ñeent fukki gàtt ak giléem ak teraanga yu bari ne joxal leen ma ko soxna alimatu saadiya am na xadis boo xam ne mi ngi ci musnadul bazaar abu tufayli moo koy nettali nee ca xaybar day gisoon naa yonent bi toog di séddale ndawal guñ togg muy séddale ndawal gi am soxna su jékki-jékki rek ñëw ci jataay bi fekk fa yonant bi yonent bi daa jékki-jékki rek jël kol gi mu koloo woon lal ko ci suuf ne soxna si toogal Abu Tufayl nee na ñépp naan waa soxna si kum doon ñu ne soxna si kat daa bokkoon ci ñi nàmpal ku tedd kii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nu mu tudd ñu ne mooy alimatu saadiya nee na loolu ca xaybar la woon kon yonent bi ku ko daa warmaal la ko daa jox cër la bu baax rawatina cëru waajur ba tey nettalikat yi nee nañ Seydunaa Hamza mi ngeen dégg nga xam ne turam dana feeñ ca kanam suway ba mii mën nettali léegi nàmpal na ko alimatu saadiya nàmpal na ko ba noppi mu wëlbatikuwaat bokk ak waajur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi di Abdul Muttalib bokk nañ nàmp ñaari yoon ca suway ba bokkaat ko ci alimatu saadiya loolu Hamza mi euh, nga xam ne turam dana feeñ kon mbokk yi euh, day mel ne nettali gi ci jaar-jaar yonent bi fii la ñuy taxawandi maanaam bi nga xamee ne ku tedd ki jóge na ci alimatu saadiya nag del ci waajuram bu jigéen ah foofa nag xew-xew bu rëy rëy rëy rëy ci la xewee ci dundam gi xew-xew boo xam ne dañuy jox mbokk yi rendez-vous allah